min asheytaan irajim bismillahi irrahmani irrahim wasalaatu wasalaamu ala ashrafi al anbiyaai walmursalin sayidina wa mawlana muhammadin il makin wa ala alihi wa sahbihi wa xayra xadimihi rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul xuqudatan min lisaani yafqahu qawli wa jaal kalaami rashidan wa mursidan wa fikrati nawir wa qalbi arshida bokki jullit yi bokki taalibe yi ñu ngi dellusi ci seen jotaay bi nga xam ni moom lañ baaxoo amal ci saa bu xew-xew yu mel ni jubsee tey ñu ñëw ngir euh, ci waxtaane wàccaayu gàmm gi ñëw ci wàccaayu gàmm gi ngir waxtaane jëmmi ki nga xam ni moo tax ñu sàkk lépp ki nga xam ni moo tax suñu borom amal lépp tama yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñuy sant yàlla bu baax a baax di sant Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasul di ñaanal mboolem njabootu Serigne tubaak gépp jiital ci ak Cheikh Sidil Mokhtar di ñaan suñu borom gën a dëgëral taxawaayam ba naal yi mu naalal lislaam rawatina yoonu sëriñ bi mu àggale ko fu kaw njortam te maandu ko ak nun mbokk yi ñu am te tey ñëw ngir eh, ci weeru sell wi wu tedd wi nga xam ni moom mooy rabiul awal benn weer la woo xam ni weeru màgg-màgg la weer la woo xam ni it bokk na ci weer yi nga xam ni moo gën a màgg ci weer yi nga xam ni moom la boroom xam-xam yi wax ni ñoo gën a màgg ndax borom xam-xam yi am na juróom-ñetti weer yu ñu wax ni mooy weer yi gën a màgg ba ci jiitu mooy euh, laylatul xadar teg ci laylatu mawlidi nabi te mooy shahru rabihil awal jud guddig guddig yonente bi salallahu alayhi wa muy guddi gi nga xam ni mooy guddi gàmm moo ci topp muy euh, ak guddig euh, laylatu laylatu bis bi nga xam ni moom la ñuy taxaw taxawaayu arafa laylatu yawma arafa mooy bis boobu moo ci topp ak laylatu nisfu saxbaan laylatu al israa wal mi'raaj ak laylatu yawmul iidil korite yawmul iid bu bi nga xam ni moom mooy korite ak laylatu yawmul iid tabaski ak am ñu ci dolli benn daal di wax ni bisu asura bis boobu noonu ñu ni mooy juróom-ñeenteel bi mu mel ne kon juróom-ñett yooyu euh, euh, xëy na ñu jum ci toftalin bi waaye teewul juróom mooy juróom-ñetti yi nga xam ni mooy juróom-ñetti yi ñu wax ni moo gën ci guddi yi am ñu ci dolli guddik asura gi bi nga xam ni mooy fukkeelu bis ci tamxarit mu mel ni kon weer wi bokk na ci weer yi gën a màgg moom gën ak àdduna yonent bi ndax yonent bi moo tax li yàlla sàkk lépp ñu li li mu sàkk lépp nee na moo tax mu bind ko moo tax mu bind ko moo tax sunu boroom euh, dafa wax ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bokk dafa wax ci xaddis ni laa tadxuluuna aljannata xata tuminu wala tuminu xata taxabbu awlaadakum ala shay'in ida faaltumuhu taababtum kenn du dugg àjjana ci yéen loolu da ngeen a a gëm waaye ba leen gëmee ba noppi da ngeen a soppante da a soppante te soppante googu ci ngeen di maanaam ci ngeen di jariñante mu mel ni lu mel noonu suñ borom da ko firndeel ci biir alquran wax ni walladina amanu ashaddu obban lillah ñi nga xam ne ñoo gëm mooy ñi gën a taru cofeel ci ñi ñi gëm mooy ñi gën a xam ñoo gën a bëgg ñoo gën a am ak cofeel mooy ñi nga xam ne ñoo gëm mu mel ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam it suñ borom da koo bëgg bëgg goo xam ni mën nañ koo leeral ci alquranul karim ba ci njanaaw yi ba ci jamaadaat yi muy garab yi ba ci njaay àll yi ba ci saxaaba yi saxaabatul kiram ñi nga xam ni ñoom la àndaloon kenn ku ne am nga ci moom cofeel gu metti gu tar goo xam ni lépp am na ay leeral gu koy leeral ci biir alquran ak ak xadisu yonent wa sallam bu ñu demee ci alquranul karim dañuy fekk suñu borom di wax ni xulin kaana abaaukum wa abnaukum wa ixwaanukum wa aswaajukum wa ashiratukum wa amwaalun iqtaraftumuha wa tijaratun taxshawna kasaadaha wa masakinun tardawnaha ahaba ilaykum min allahi wa rasulihi nga xam ne dafa tudd baay tudd doom tudd mbokk yi mboolem tudd soxna yi tudd mboolem mm, peuple bi daal di wax ne nag yéen ñi nga xam ne dangeen bëgg yàlla ako yonentam wa jihaadin fi sabilihi loolu cee teg jihaad ci yoon yàlla mu mel ne kon suñ borom waxtu nekk dafay lëkkale jëmmam ak jëmmi yonent bi loolu dafay firndeel màggu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam màgg te it ci biir hadis hadis yonent bi sunu boroom yonent bi sallallahu alayhi wa dafa wax ni laa yuminu ahadukum xata akuna ahaba ilayhi min waalidihi wa waladihi si ajmain kenn ci yéen ak ngëmam du mat lu dul ni dama ko gënal boppam gënal ko doomam gënal ko alali adduna ak li ci biiram wax nañ ñi jotaay bii mu doon waxee wax ji bari na ay riwaayaat yu ci ñëw mooy yeneen addis yu ci ñëw waaye jotaay bi mu ko doon waxee ñu ëpp ci saxaabatul kiram yi ñu ngi fa waaye sayduna omar ak sayduna abu bakrin ñoo ci gën a ràññiku sayduna abu bakrin nee nañu dafa wax yonent bi ni ko jàpp ci bakkanam wax ko ne ko giñ naa ci sama sama bakk ci yàlla mi nga xam ni sama bakkan ci moom la ne yaa ma gënal sama bopp gënal ma samay doom gënal ma samay soxna gënal ma alali àdduna ak li ci biiram nee nañu Seydina Omar it jàpp ci bakkanam ni ko maa ngi giñ ci yàlla mi nga xam ni sama bakkan ci moom la nekk yaa ma gënal samay doom gënal ma sama bakk sa ma sama alali àdduna ak li ci biiram waaye nag bàyyi bakkanam ngir ne ko bu ma lay topp sama bakkan a tax yonent bi daal di soppi hadis ba laa yakmulu imaanu ahadukum ata akoona ata akoona ahabba ilayhi min min wa min waalidihi wa waladihi wan naasi ajmain kenn ci yéen ak ngëmam du mat mu dégg ci ni kon mëntam amum ngëm mukk mu dégg ci ni kon Seyduna Aboubacar la ko bëgg a wax ni ko moo la gën a matle ak ngëm Seyduna Aboubacar moo la gën a matle ak ngëm loolu la ci dégg kon moo tax mu dellu jaayantewaat daal ci boole bakkanam daa ni ko yaa ma gënal sama lépp sama bakkan samay doom sama alali àdduna ak li ci biiram yaa ko gënal kon loolu dañuy wan ni yonent bi moom suñ boroom dafa digle ñu bëgg ko ba képp koo xam ni bëggoo yonent bi moom na la wóor ni sëngam du mat moo tax ci alquran wax jooji yonent bi wax ci hadis dañuy fekk mooy lu wér loo xam ni boo demee ci alquran alquran dani annabi u awlee bil muminina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum wa ulul arxaami baaduhum awle bi baadin fi kitaabillahi min almuminina walmuhajirin illa an tafxalu ila awliyaikum maarufan kaana dalika fi lkitaabi mastura alquran dani yéen ñi gëm yàlla yéen ñi gëm yàlla kon ñi gëmul bokkuñ ci yéen ñi gëm yàlla yonent bi moo gën a yay ci seeni soxna gën a yay ci seeni doom ak seen léppi àdduna ak alaxira yonent bi moo ci gën a yay ci yéen mu mel ni kon faaw nga gëm yàlla doo ko gëm faaw nga gëm yonent bi boo gëmee yàlla te gëmoo yonent bi sa ngëm du du du du du ko nangu ba tey dañuy seetlu ni yonent bi day royukaay boo xam ni yàlla moom la teg muy royukaay bu mat bi sëkk boo xam ne roy doowuñu kenn ku dul moom saxaabatul kiram ci moom lañ daa roy ñi àndoon ak sëriñ bi it sëriñ bi mboolem ko aju ci moom digal na la nga roy saxaabatul kiraam yooyu nga xam ni seen roy tey bépp mooy yonent bi sallallahu te it dañoo war di jëfandikoo sunnaam topp ko topp sunnaam topp ay waxam topp ay jëfam di déglu ay ndigalam di bàyyi ay teram te lépp ànd ak i teggin yu mat sëkk moo xam mu yomb la moo xam mu jafe lu mu ci mën doon dañ koo war a topp ba tey it Ah, dañuy seetlu ni boo demaatee ci alquran suñ borom dafay wax ni qul in kuntum tuhibbuuna allaha fattabi'uni yuhbibkumullah nee na topp leen yonent bi boo leen ko toppee rek topp ngeen ma man yàlla mu mel ni kon yonent bi sallallahu alayhi wa ni may wax yàlla suñ borom daal lëkkale jëmmam ak jëmmi jëmmi yonent bi ba tax mu wax ni képp koo xam ni topp nga yonent bi topp nga ma am na ci benn hadis boo xam ni abi Moussa moo ko nettali dafa wax ni ar rajulu yuhibbul xawma walamma yalaqu bihim kenn koo xam ni danga bëgg kenn te doo dajeek moom ëllëg amul moo tax mu teg cee ni almaru mahaman ahabba nit ka sopp rek lay àndal bu ëllëgee Anas radiallahu anhu dafa wax ni yonente bi nee na man ahabbani kaana mahyi fil janna képp ku mu bëgg maag yow ñooy ànd ajjana képp ku mu bëgg maag yow ñooy ànd ajjana mu mel ni bëgg gi nga xam ni moom la sunu boroom bëgg yonent bi dafay gën a leer ci biir alxuraanul karim wax na ci ay yu bari ay yim ci wax yépp sax kenn mënu ko andi ndax lu ci bari ay junj la ndax daa bari lool ba kenn jotaay bii sax buñ ko ci bëggoon andi moom rek duñ ko ci andi dañ ci tànn li ci liñ ci mën a andi rek andi ko moo tax sunu borom dafa tànn yonent bi sallallahu alayhi mu def ko mu doon tànnee joo xam ni da koo gënal ci mboolem li mu bind ba tax danañ seetlu màggu yonent bi ci biir wax ji suñu borom wax ni suñu borom daf ni wa axbar naa jalla jalaaluhu annahu yusalla alayhi huwa wa jamia malaikatuhu alayhimu salaam na suñu borom dañoo xibaar wax ni moom suñ suñu borom moom màgg moomu moo ñu wax ni moom day julli ci yonent bi ak mboolem malaayika yi fa qaala taala mu dellu wax ci alquran ni inna allaha wa malaikatahu yusalluuna ala nabii yaa ayuha alladina amanu sallu alayhi wa sallimu tasliman dani man ak mboolem malaayika yi de man maa ngi julli ci yonent bi ak mboolem malaayika yi kon ñoom def nañ ko ba noppi daan yéen ñi gëm nag saa boo waxee amanu dafay wuute an naas naas moom nit ñëpp dañ ci dugg ñu gëm yàlla ak ñu ko gëmut waaye amanu ñu gëm yàlla gëm yonent bi moo ko tax a jóg mu ne na ngeen julli ci yonent bi te sëlmal ci moom kon yàlla dafa joxe ndigal ci ñu julli ci moom te sëlmal ci moom moo tax Cheikh Ahmadou Bamba radiallahu anhu wa ardaahu dafa wax ni wa salli da'ban ala man julli ci yonent bi farata la ci bépp jullit bu mën doon loolu lépp kon dafay firndeel màgg gu yonent bi màgg bu demee ba yàlla di julli ci moom dafay wane màgg gu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam màgg suñu wax ci alxuraan ba tey ni da ko ubbi ubbi gu bir wax ne woo fataa lahu fatahan mubinan kama xafara lahu min ta min maa taqaddama min san bi wa maa taaqar fa qaala lahu ci waxam jooju la wax ni ci alquran ni inna fatana laka fatan mubina li yaxfira laka allahu ma taqaddama min zanbik wa ma taaqar wa yutimma ni'amatahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima yonent bi da ko dañ ko dañ naa la sa bakkaar yépp ba toppatu ko dara da ko mbaa yàlla lu mu mën a defati it du tax mu gis ko du tax mu topp ko ndax jéggal na ko am soxna su baax su ko ma sa wax ni ko xanaa du yow la yàlla wax ni jéggal na la sa bàkkaar yépp ngay sonn nii ngay sonne di julli ba sa woomi di nawi ak sa jë mu ni afala akunu abdan shakuran xanaa du ma nekk jaam buy sant boroomam waaye ñuy seetlu ba tey ci biir alxuraan màgg gu yonent bi màgg ci li ko suñ borom di jox lépp mooy ci jox gum ko jox dégg ba ñuy wax kaw kawsara nga xam ni dégg la boo xam ni mboolem xeeti teraanga am na ca te mooy li ko wax ne ko inna a'taynaaka al kawsar yow da laa jox dégg ba ñuy wax kawsar yàlla yit ba tey li waxtu wu nekk day lëkkale jëmmam ak jëmmi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne allah saa boo leen toppee yonent bi rek topp ngeen man yàlla kon eh, loolu day wane màgg gu yonent bi màgg suñ borom di ko xamle ci alquran saa boo leen toppee yonent bi rek topp ngeen man yàlla wa atihu allaha wa rasula laallakum turaamun boo leen toppee yàlla topp yonent man mën naa am mën naa am ngeen ngeen texe soo leen toppee yàlla topp yonent bi mu mel ni kon nit bu toppee yàlla kese te toppul yonent bi suñu borom du nangu topp ga gii mu ko topp moo tax suñu boroom wax ni tilka ududullahi wa man yutixi llaha wa rasulahu nudxilhu jannatin tajri min tahtiha al anhar xaalidina fiha wa dalika al fawdul azim nee na boo leen toppee yàlla akub yonentam da dugg àjjana kon ba tey yëpp dafa bokk ci liy firndeel ni suñu borom dafa lëkkale jëmmam ak jëmm yonent wax ni yaa ayuha alladina amanu ee yéen ñi gëm aminu billahi wa rasulihi yaa ayuha amanu aminu billahi wa rasulihi yéen ñi gëm gëm leen yàlla waaye it ngeen gëm ab yonentam te mu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam suñu borom loolu aayoo yëpp day firndeel xam xam muy xamle fonk gu nekk ci fonk maanaam fonk gu fonk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu lay xamle ci biir aayoo moo tax mu ni innamal mu'minuna alladina amanu ñi nga xam ne ñooy dëgg-dëgg jullit innamal foo ko dégg mooy day wax ñee dëgg-dëgg innamal mu'minuna ñiy dëgg-dëgg jullit ñu ne ñooy ñan mu ni alladina mooy ña nga xam ne amanu gëm nañu billahi wa rasulihi ci yàlla aku aku mooy ñooy ñooy digg dëgg jullit suñ borom waxaat ci alquran ni wa ma manaahum illa an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa rasulihi képp koo xam ne wedd nga yàlla akub yonentam wala yaatuuna salaata illa wahum kusaala wala yunfiquuna illa wahum kaariwun daa tëkku ñi nga xam ne ñoo wedd yàlla ak yonentam te duñ taxawal julli kon loolu yëpp day firndeel maanaam lëkkalegum lëkkale jëmmam ak jëm yonent bi foo dem ci alxuraan loolu lay wax bokk na ci li gën a màgg nga xam ne danañ ko seetlu ci alxuraan mooy li mu wax ni inna alladina yubaayi'unaka innama yubaayi'una allaha yadullahi fawqa aydihim dana saxaaba yi radwanullahi alayhim saa boo leen jëlee seen loxo di jaayante ak yonent bi teg ko ci kaw loxol yonent bi tegoo leen ko ci kaw loxoom moom yonent bi waaye yaddullahi fawqa aydihim ci ci sama loxo man yàlla ngeen ko teg loolu kon dañuy xamal màgg gu yonent bi màgg da ko tagg yit ci biir alxuraanul karim fu bari foo xam ni li ko ci wax kenn mënu ko andi wax nañu wa innaka la ala xuluqin azimin maanaam nit ñi li ñuy bari bari lim mbindeef fi bari bari yaa ñépp ñëpp jikko si jikko yemut ak dara waaye mu delluwaat waxaat ci alquran ni wa maa arsalnaaka illaa rahmatan lil alamin ji ko jox yónniwu ko ci dara lu dul ngir yërmande dama laa yónni ngir yërmande yaa ayyuhan nabiyu inna arsalnaaka shaahidan wa mubashiran wa nadira wa daayan ilallahi bi iznihi wa sirajan munira wa bashiril muminin bi anna lahum min allahi fadlan kabira wala tuti al kafirina wal munafiqina wada wada alayhim wa tawakkal ala allahi wa kafa billahi wakila yow yonent bi nun yónni nañu la ngay seere tey bégle ak xuppe tey woote jëme ci yàlla ci ndigalam tey lamp buy leeral lépp lépp loolu day day day wane màggug yonent bi ba tey da ko wax ne ko yow yaay lamp bi leeral lépp loo xam ni leeru toon lu nëbbu woon rek yaa koy leeral yaay bégal ñi gëm yit ci ngëneelu yàlla yaay bégal ñi gëm ci ngëneelu yàlla mu mel ni kon loolu yëpp day wane aaya yooyu yëpp buñ ko seetee da ngay gis ni yonent bi dara lu ko gën a màgg fa yàlla amul moo gën a màgg lépp te lépp lu yàlla sàkkit moo tax mu sàkk lool loolu la ko suñu borom defal moo tax foo dem ci aras ak kursi yu da fekk suñu borom bind laa ilaha illallah muhammadun rasulullah laa ilaha illallah lim ciy teg mooy jëmmi yonent bi rek muhammadun rasulullah sallallahu alayhi wa sallam moo tax yonent bi lépp a ko bëgg yow moom yonent bi sallallahu alayhi lépp ko bëgg mën na mën naa cee tudd at nettali bi sayduna aliyun nettali karamallahu wajaaw dafa wax ni am na bis ma may dox andak ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci makka bi ñu génnee awma lu dul jekki-jekki rek bi yonent bi jubloo benn garab bi yonent bi jubloo garab gi garab gi dafa wax ni assalaamu alayka yaa rasulallahi loolu la sayduna aliyun karamallahu wajahu wax nee na dama ànd ak bi ci makka ñu jub benn garab rek garab gi ni ko assalaamu alayka yaa rasulallahi moo tax kon jamaa daal di sax dañ ko bëgg muy garab yi ñoom ñëpp dañ ko bëgg amul dara loo xam ni bëgg bëggul yonent bi bu amee ñenn ñoo xam ne bañ na yonent bi ci jinne lay doon mbaa nit te xamuñu ko waaye lu mu mën a doon lu ne daa bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mën naa ca joxe misaal ci eh, dattu garab bi mu daan taxaw di ci di biñ ko defalee minbar mu toxoo ci dattu garab bi dem ci minbar bi dat garab gi dafa yuuxu ba waa jàkka di ko dégg ngir cofeel gu gu tar gum am ci yonent bi sallallahu alayhi moo tax Urwatu ibnu Mas'ud biñ ko laajee ana seen bëgg ci yonent bi nu meloon dafa wax ne fa wallahi ma tanaqama rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam nuqaamatan ila waqaat fii kaffi rajulin minhu fadalaka biha wajhahu wa jildahu giñ naa ci yàlla ni sunu bëgg yonent bi àggoon na foo xam ni mës sa tifli wenn tiflit mu àgg suuf lu dul dañ koo jël njëkkandikoo ko jëfandikoo ko lekk ko wala ñu raay ko suñu kanam loolu day wane cofeel gu tar ci diggante saxaaba yi ak yonent bi moo tax ali ibnu taalib ali ibnu abi taalib wax ni biñ ko laajee seenu bëgg yonent bi nu meloon dafa wax ni giñ naa ci yàlla ni moonu gënal sunu ndey gënal nu sunuy baay gënal nu suñu jëmmi bopp gënal nu alali adduna ak li ci biiram mi ngi mel ci nun ni ndox mu sedd guy ci gémmiñu aji mar ku mar ni ndox mu sedd di mel ci gémmiñam nee na noonu la yonent bi mel ci ñun am na eh, ibnu masud radiallahu anhu dafa wax ni dafa nekk di lekk ak yonent bi ci lenn ndab amul lu dul jekki-jekki rek dégg ñam wi di sabbal yonent bi sallallahu alayhi wa loolu lu màgg màgg la nga xam ni kon day wane ni jëmmi lekk yi sax nga xam ni ci mbindee fi lañ bokk muy waraaya waraa lañ bokk yooyu sax dañoo xam yonent bi ñoom ñëpp xam nañu yonent bi lii Ibnu Mas'ud nettali da koy firndeel ñam bi ci boppam mooy sabbal yonente bi sallallahu alayhi wa nee nañu picc yi sax bu masaa génn dañ daa dañ daa jàmbat jëm ci moom di wax ak moom nekk noonu it till yi dañ daa dañ daa dañ daa dañ daa eh, jàmbat jëm ci moom waaye dañ daa sujjóot ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bu leen rombee ñu koy ñu koy ñu koy sujjootal maanaam di ko nuyu moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam loolu lépp saxaabatul kiram yi bëgg ko bëgg gu tar googu jamaadaat yi till yi ñàll yi ba ci ñam yi lépp bëgg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam loolu lépp yonente bi dadaa wax ni min ashaddi ummati li xubban naasun yakununa baadi yawaddu ahaduhum law bi ahlihi wa maali nee na ñi ma gën a sopp ci sama xeet bi ñi nga xam ne ñoo gën a taru cofeel ci sama gannaaw lañuy ñëw ci sama gannaaw la ñëw ñoo ñii de ñooy ñi ma gën a sopp ci sama xeet bi daal di wax ni dara wax ni innal xawma yatuuna min baadi yawaddu ahaduhum ay yuqtadi bi ru'yati ahlahu wa maalahu ñi nga xam ni ñoo ma gën a bëgg ci sama xeet wi te di ma roy ñooy ñi nga xam ni kuréel lañ ngoo xam ni kenn ci ñoom ku ne suñ ñu ko woon nga joxe sa alali àdduna ak li ci biiram ngir teg ma bët mu jaral ko ko mu wax ne ñoo ñii de yàlla dina leen tawféexal li ñuy wax tuuba mooy lim na tuuba li man amana bii wallam yara nii ñoo ñi ma ñoo ñi nga xam dañ ma gët gëm te teguñu ma bët ñooñu ya suñ borom dana leen tawféexal li ñuy wax tuuba mu wax ni wadditu anni laqiitu yi sama mbokk yooyu kañ lay dajeeg ñoom loolu daa wax mooy ñi nga xam ne ñoo bokk ci xeetam te bëgg ko lool te te te moom jamono mu daa wax ni mataa alqa ahbaab yi kañ lay dajeek sama soppe yooyu wadditu a aytu raaytu yi loolu lépp moo ko daa wax daa daa wax ni Euh, saxaaba yi ni ko xanaa ñun dañ sa soppe yooyu ngay wax mu ni ah kay yéen samay saxaaba ngeen waaye sama soppe yooyu may wax ñoom dañu maa gëm te gisuñu ma maa ngi leen namm lool alladina amanu walam yaraw nii wa fi ziyaadati ana ilayhim bil aswaq sama sopp yooyu may wax sama gannaaw lay ñëw maa ngi leen namm lool te bëgg leen a gis moo tax lii lépp nag dafay firndeel bëgg gu yàlla bëgg yonent bi bëgg gu ko mboolem sunu mboolem yonent yi bëgge bëgg gu ko jarab yi bëgg bëgg gu ko njaay àll yi bëgg bëgg goo xam ni ba ci ñam yi sax bëgg nañ ko ko moo tax bañ yonent bi saa bu amee jinne lay doon wala nit waaye lépp xam na yonent bi sallallahu alayhi wa moo tax fonk ko suñu borom fonk moo tax mu terale ko lim koy jox lépp xeetam la def mu gën a tedd ci xeet yi xeet wi gën a tedd ba nga xam ne sax yonent yi jiitu woon sax dañ doon ñaan seen borom ngir bokk ci xeetu yonent bi ñoom yonent yi jiitu woon dañ daan ñaan seen borom ngir bokk ci xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax suñu boroom terale ko li ñuy wax julli nga xam ne bokk na ci li gën a mag mooy li gën a màgg ci ci lislaam mën nañ ñi te ba mu ko koy jox da koo def rendez-vous boo xam ni mosu koo defal kenn ci kaw suuf muy al isra wal mi'raj invité ko invitation boo xam ni da ko terale mboolem sa yonent yëpp la ci invité ñu ñëw nga xam ni dafa jóge ci ki muy kimtaan koo xam ni suñu borom moo ko waxal boppam ci alquran ni subhaanallahi asra bi abdihi laylan min al masjid al haram ila al masjid al aqsa mu dem juróom-ñaareel bi asamaan muy xew-xew yu bari yoo xam ni ba mu fa demee la ko jox julli juróom muy juróom fukki julli ba mu ñëwee daldi ba mu ñëwee ci asamaanus juróom-benneel ci ñëw ci naa Muusa mu ni ko saw xeet da dañu ñu tayal da ngay dem ñu wàññil la ko ba ni mu matee juróomi julli waaye ci jox googu mu ko jox julli danañ ci xame Sëriñ Tuubaa nettali na ni guddi gi rañaan googu waxtaramu moom yonent bi yonent yëpp dañ koo warmaaloon yonent yëpp dañoo toogoon di ko xaar warmaal ko waxaddamu ñoom ñëpp dañ koo jiitaloon waaye wa karramu ñoom ñëpp dañ koo teraloon ngir teranga gi ko yàlla teral wa wasaslamu dañoo defoon ay sàppe ngir di jébbulu ci moom ay sàppe lañ defoon ngir di jébbulu ci moom ndax loolu yàlla leen ko déggal mooy jaayante ak moom tawaadu an ñoom ñëpp dañoo toroxlu woon wa azamu ngir màggal jëm yonente bi sallallahu alayhi wa sallam li xadrihi lmuhtarami ngir kàttanu xorma gi ko yàlla ormal nga xam ni bokk na ci màggug yonente bi li suñ boroom eh, def mboolem yonent yëpp mu diggal leen ñu jaayante ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba ñoom ñëpp yonent bi mooy seen sëriñ yonent bi ci boppam sax ngir xam ne yàlla xam la ni kilifa mënta ñàkk moo tax mu ni ko wattabi millata abika ibrahim toppal sa yoonu baay ibrahim loolu dañ ciy dégg ni suñu borom da ko lim koy wormaal wormaal lim koy màggal màggal da ko bëgg a wan ni ko kilifa mënta ñàkk bu mënoon ñàkk moom du am kilifa moom yonent bi te teewul loolu lépp nag ànd ak loolu lépp Seydina Ibrahima mi ngi koy wax mu topp ko sax moo ko gën moom moo gën lu yàlla bind moom yonente bi sallallahu alayhi moo tax ci alxuraan da ngay dégg foo xam ni suñu borom day wax ni maa kaana li nabi nañu xàllaw may yaxlul yaati bi maa xalla yawmal yow da nekkoo koo xam ni day day fuññu wala muy mer ndax boo ko doonoon kenn du la jege loolu aw tagg la bu muy tagg yonente bi sallallahu alayhi wasallam wa maa muhammadun illa rasulun qad xalat min qabli rasul yooyu yëpp ay tàggale yoo xam ni da koy tàgg yonent bi sallallahu alayhi mu mel ni kon yonent bi aay yi ci al alxuraan andi andi andi ko ci ci li nga xam ni mënees na koo wax ci moom ci tedd nga ci teraanga yi ko yàlla terale loolu kenn xamut nu mu toll te loolu rek doyoon na waxtaan wi waaye dañ cee tënk li nga xam ni mënu cee ñàkk ñu tënk ko ci euh, li euh, bu ko defee nag ñu war a jàll ci Cheikh Ahmadou Bamba digganteem ak yonent bi ndax loolu danañ ci déggee xamala xamaale ci it màggu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax ku toll ni Cheikh Ahmadou Bamba li muy wax ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafay nekk loo xam ni ku am xel ku ne bu ko déggee dana ci xame màggu yonent bi ndax Sëñ Tuubaa ku ne xam na ni li mu liggéeyal yàlla jëfal ko ko ak moom ci boppam jay boppam ji mu amee muy abdullahi wa xadimi rasulihi lan lu ko gën a màgg amul benn daraja boo xam ni waxuma la gën koo màgg waaye nit ñi kenn boo doon bu doon tàmbali ci histoire ci nitu yàlla yu njëkk ya ñi ci àgg ci garaatuma abdullahi rek bariwut waxuma laa nag ñi ci àgg ci abdullahi wa xadimi rasulihi xadimu rasul moom benn garaat la wu yàlla doon jaay te jaay na ko Sëñ Tuubaa ba mu jënd mu mel ni kon ci biir dunduk Cheikh Ahmadou Bamba danañ ci xame màggug yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax xam naa dañuy ñëw ci ñaareelu bu ñëwee ñaareelu waxtaan wi danañ leeral diggante Sëñ Tuubaa ak yonent bi sallallahu alayhi wa euh, loolu moo doon ak tënk ci dundu yonent bi ci digganteem ak boromam ci digganteem ak jamaadaat yi njaayaale ba ci saxaabatul kiraam yi donte ne lu yaatoo yaatu la waaye ak tënk la rek ngir lépp kenn mënu koo teqarte ndax digganteem ak saxaaba yi rek doyoon na ab jotaay digganteem ak boromam noonu digganteem ak mbindeef yi noonu lu mën a doon ma doyoon sëkk ab jotaay bu ñu war a waxtaanee waaye xam naa loolu mooy li ñu tënkal ci. Euh, waxtaan wu njëkk bi waaye ñaareelu waxtaan wi incha allah danañ ci leeral diggante Sëriñ Tuubaa ak yonent bi wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu